waa ndaje tey bi li ko waral dañoo ñëw fii euh, en tant que euh, la section communale de Médina Gounass pour installer benn cellule bu quartier Yeewu 2 bi nga xam ne waa Yeewu 2 bi ñu génnee ci élection yi ñoo sàkk woon la section mu ñëw fii taxawal leen cellule officiellement naam yàgg nañ ko sàkku waaye ku xam péripéties yi nga xam ne moo nekkoon ci réew mi depuis fort longtemps demu woon euh, activité de terrain ba giñ génne ci élection yi nag mooy première cellule bi nga xam ne moom lañ ñëw installé parce que dañu gëm ni comme li ñu waroon def yëpp def nañ ko xeex nañ ba suñu borom dénkuñu réew mi tey jii loolu ñu doon jaay projet sénégalais yi moom lañ war a jëmmal dafa ñu koy jëmal du fenn fu dul ci biir askan wi lu ñu mës wax rek bu ñu doxee ñu teg seen bët suñu wax nit ñi loo xam ne teguñu seen bët kon yaakaar naa ne du ay slogan wala lu ñu wax ay vœux pieux yu ñuy wax rek pour sénégalais gëm ñu mais lu ñu gëm foncièrement la ba def ko suñu statut parti maanaam le cumul dañ ko bannir au niveau de de Pastef parce que lu tax le principe c'est quoi dañ doon gis ni les politiciens au lieu ñu ànd def des équipes pour travailler mais on crée des hommes forts benn nit bëgg a occuper plusieurs forces ça veut dire que ñi ci ginnaaw wala ñeneen ñi ñoom mënuñu dara loolu ñun dañu gëm ni loolu mënul nekk parce que y' a assez d'hommes y' a assez de femmes yoo xam nekk ni mën nañ jouer d' autres rôles ba nga ko ku nekk rôle bi nga am dañ la koy nga jouer ko pleinement soo ko defee ba réussir ko ñu defal la promotion ñeneen aussi montrer leur preuve ailleurs laaka naa loolu mooy l' esprit ñu gëm ni ku nekk war nga jël benn poste liggéey ko ba def say preuve booy am promotion nga am promotion keneen aussi mën a def benn poste moo gën kenn a accaparer ku ko gis rek xam ne lii ñu waxoon lépp respecté nañ ko maanaam respecté nañ critères yi nga xam ne moo jiitu muy xam-xam ak expérience ak njub ak ñi nga xam ne am nañ parcours bu wóor boo xam ne Sénégal kenn du ko lamlam ne ñooñu lañ jël teg ba génn sax suñu parti wane ne Sénégal du parti rek moo ko moom mais ñi ay doomam fu mu mën di nekk tam ay compétence ñu jël leen yaakaar naa un gouvernement de vingt cinq ministres koo ci jël mu nekk kàngam ci domaine am def ses preuves un peu partout au niveau national comme au niveau international yaakaar naa ne loolu ku la dig euh, euh, añ bu la joxee ndékki war nga gëm ne dina la jox añ